Heisenberger Hei Heisenberger. daa Heisenberger. moom moom léegi dafa wax ne. comme tey atome yi atome.
atome atome. zarra. atome am na ay.
mooy bombu atomique mooy bombu ato.
waaw waaw. moo xam nga léegi mooy li gën a tuuti. fekk suuf buñ ko doon xar ba ba mu ba du ko gis. loolee. dañ ko léegi scientifique yi yemuñu ci dañ ko dajji toj ko. ko tojee fekk ko ni que ay kii lay def nii ay axsima ay axsima daw yi def ay axsima ay ay ay xeeti lu lu mel ne ay buum la def yoo xam ne courant la. ay am nañu tuddee électronaat photonaat nagam ay ay ay yooyu.
axsim mooy.
axsima axsima ci ci xisaab mooy mooy ak der. ndax ni ni ni mu doxee noonu. day wëndeewu li def nii. léegi gi ñoom.
ayin saad la.
ah ah.
ayin saad.
bu dee xaalam ko la xisaam.
axsima waaw.
axsima léegi léegi ñoom ñu ne atome. boo ko bëggoon a xool. courant bi. buy daw. dañoo trouvé ne nekkate soo ko jegee pour xool ko. vitesse bi day wàññi ko. soo ko soree mu gën a na gaaw ñu ne kon nag léegi. dañuy jël suraatul suraatul vitesse atome bi. mooy maanaam léegi observateur bi. molaxis bi. koy xool. faaw ñu ñu ñu ñu mooy ko ci bu ci mooy ko doo mën a xam gaawaay ko. ginnaaw boo ko jegee mu boo ko jegee mu yéex. boo ko soree mu gaaw. te te boo ko soree doo gis. ko ko ñu ne kon loolu kon kon mooy la kon facilité esti estimal. estimal probabilité probabilité. probabilité pro probabilité ci anglais. lu mën a am daal maanaam lu lu lu ñuy am la.
li ñu daan wax lu jamtal.
jamtal wolof yi njëkk lu jamtal sax mu mooy loo xam ne moo gën a loolu mooy mooy arucaan loo xam ne kat moo gën a yàlla ah lii de moo gën a jamtal lee.
nangam waaw ñoom lu foogu da kon lay. lu mën a lu foogu la.
waaw lu foogu la li li bu dee lii mooy laam-laamee.
waaw ñoom nag ihtimaal boobu.
ah bu dee wala di ñoom ñu ngi daan bu la ihtimala. jamtalu na.
di di di di bu bu dee ihtimala mooy jamtalu na. ihtimaal nag mooy diggante bi. ñaari maanaam yi lay wute. bu dee bu dee fexle bi.
waaw ihtimala. ihtimala jamtalu ne nangam.
waaw.
al ihtimaalu nag mooy. nii digg bi.
waaw.
digg bii mooy ihtimaal. yetta arjax bay na nangam a nangam. mën naa am nii la mën naa am nii la. loolu kon mooy laam-laame kon.
yetta arjax.
yetta arjax. loolu la waaw.
bi maanaa bi maanaa jiim xaa.
waaw ok. yetta oh du ma di yetta. yéhé noonu la.
yetta arjax.
waaw kay moom comme urjuha njowaan. noonu la léegi kon ihtimaal kon moom. mooy kat mën na am. mën na ñàkk maanaam léegi kon xanaa ne li li ñoo bëgg scientifique bi léegi. li muy wax léegi du ci dogo.
ci dogu
mën naa am la mën a ñàkk. waaw ndax yëg na ne moom. moom li muy observé. moom ci la bokk rek waaw ci la bokk ci la bokk léegi fi ñu toll nii loolu loolu dafa am solo. même su ma dee gëstu murit ci misaal murit gi. man su ma soo jub nga xam ne man murit laa. war naa bàyyi lu xel nag ni kat ni kat murit laa de. li ñuy tuddee almawdon ya maanaam léegi di gëstu dara génne ci sa bopp mënut a nekk. loolu mënut a nekk moom. kon kon léegi kon léegi yow boo noppee. maanaam léegi war ci war ngaa moyen. moyen da moyen un. boo amee cent point mooy ci un. ndax yow un bi mooy yow. ah jéega ma koy ah yaa ngi tagg rek def nangam na o lii baax na lii baax na ñu naa waaye yow xam ba xam nga mu rënga nga naa parce que amul la koy ah kon nag kon mooy ci mooy ci un aw ma cent point de cent point amoo ko moom waaw lu am solo la kon léegi mu ne kon ma ma jox marifa kulluha ihtimaliya lam laamee kon la ina ma jox ma ma marifa tam alam mustahila xam nga man ci laa indi man falsafatul imtisaal falsafatul imtisaal loolu moom man maa ko wax moom imtisaal waaw maa ko wax maa ko wax mooy lan
xam nga neewaan naa da- booba damaa xalaat damaa taxaw taxaw seetlu ma ne waaw lu lu luy dëgër parce que dañ ne dëgër amut ak waaw nooy yooyu amut ma ne waaw léegi nun scientifique yi li li ñuy wax ñii ci bitti ne am na mbaa wér na nag scientifique yi on est de part mais ginnaaw ñoom seen bopp la ñuy wax kon ndax kon nuñ ak ak seegoon nañ ci adduna bi ba xam ko ah ndax ak si nañ fi fi fi ñu dool noonu boo xam ne dañoo war a gëstu ban méthode la ñuy jaar pour génn ci seen bopp pour génne seen seen bopp ci xam nga si- xam nga li suñu ba waxoon ëbu isni bustam yi ba mu ñëwee ci xadra ba ne ko yow laay seet yàlla ne ne ko dellul fa nga jóge woon boo demee nga sumi ko ci sa bopp kon nag ma gis maanaam faral waaw par ko kon nu nu nuy fexee ba mën a far ba adduna bi taxaw problème la de loolu mooy loolu ah waaw ah problème la kon nag kon nag li li li ñu fatu imsa kon li muy wax mooy nuñ li ñu li li ñu li ñu leen adduna bi mooy adduna bi mën na ko bañ a doon man na ko imtisaal daal mooy firi eh, Re- re- représentatif waaw waaw waaw waaw maanaam léegi adduna bi Hmm.
noonu noonu ñoo re- ñoo représenté wu ci adduna bi ne ne ne ko ne ko misaale ko nangam ah dañ ko misaale nangam mi ko mi ko waaw ñoo ñoo misaale adduna bi suñu bopp waaw naan adduna bi de yow da da da ngaa dëgër Mhm.
adduna bi est ce que ñoo ko da da ngaa nooy de da ngaa tàng da ngaa sedd te lépp nga su bopp li wax
waaw léegi nag bu amoon am malaaka mu ñëwoon to- toog ci jaraay bi am malaaka toog ak jinne waaw ñoo ko sëñ malaaka yow xam nga nooy mu ne déet man man man man man nooy xamu ko man nooyuma dëgëruma tànguma sedduma ñu ko ay yow malaaka mi ko doon taxawal te yow kon xool adduna ba xam yow loo loo gis loxo gi loxo gi waaw waaye malaaka yi ma- mbaa du am problème moom it daal dina nuyu dina nuyu tënk- atte moom atte moom.
atte adduna bi ci moom waaw
noonu la def kay jinne yi noonu léegi jinne yi espace bi yaakaar naa du yàq du yàq moom moom it moom it ndax espace jinne comme temps bi temps amu amu amu temps waaw.
amu temps amu espace mu ngoog.
moo moo moo moo tax loo xam ne borom borom xam- xam-xam yi scientifique yi wa- war nañ koo ba xel waaw ne ma mën naa am daal ba tey xam-xam àggagul ci adduna bi waaye lii baa bind nga ci téere treize mille treize mille treize ah tur bi rek nga mille bi naa ci am maxaar bu gàtt rek
ah dëgg yow daa war a yaatu nag wallaay wallaay wallaay wallaay insha allah
soo soo soo waajee donc bi ne boo yooyu boo doon bind di ko jox rek waaw kii kii so insha allah ma ne naa ne naa ko dama ne ko da da ngaa war a def da ngaa war a def agrégation ci tawxid ñu koy dugale ci ci ma maanaam science wax naa ko ko insha allah loolu dana dana dana am solo lool ndax ndax léegi science tawhid tubaab yi da- dañ ko ciy génne
te ci la bokk te te- te- xa- xam nga tubaab yi li tax ñu génne ko ci mooy problème bi ñu amoon nag église bi église bi parce que parce que église bi ñu këpp ko ci science daal nekk lépp lu lu kooxut lu lépp lu ku trouvé loo xam ne wute naag li téere bi wax léegi moom léegi yow da nga koy teg fee bu bul ko bul bul ko génneel ndax wérut li wér mooy lépp lu dëppoo ak téere bi te te téere bi moom léegi du dara dara waaw téere bi moom false la léegi nag tubaab bi nekkoon léegi pour pour ñu avancer dañuy weddi téere bi léegi nag souvent islam mii kon léegi moom la bu soo jëm moom di jël présenté ko islam moom amul problème boobu kon léegi nag jël leen islam yéen du dugal ko ko ci ci science ba xam incha allah taala waaw wallaay wallaay wallaay wallaay mu ne mu ne kon fa mu ne xaw maa yaqu ana ko adituna wa mu ne xaw maa yaqlu maa maa fatal alam mustahila am am na ñuy wax allah adriya allah adriya mooy moom xawma xawma xawma xamoo
kenn xamul bu dee boo xamoon nit mënoo maa xamal waaw la add waaw ay waaw man man ay waay sëñ bi. nga def géntaan la ma ne sant yow. mbay lay lay lay lay lay na nga def. suñu anam foofu ci naa.
muy lay waaw xanaa paa dugg sëñ bi. ñooñu moom la add yi moom. ñoom dañu ñoom xa- xamuñu. yow xamoo boo xamoon yow it mënoo maa xamal. jeex na xam-xam si boobu mënut a rek.
ala diri ñoom métt nañ de waaw.
waaw ala diri yoon nga leen di wax booy laay di yoon Hmm.
maa nag Hmm.
ab révolution la la la ci ci yone Hmm.
maanaam mooy bu coow yu bëree werante yu bëri nga taxaw ci digg ba ne man anuma kenn ci yéen laa diri loola coow yi lay bëri te tàngal naa ko mu ne yàlla man anuma ak yéen mu jeex kooku boo ko bëgg a xam ma mën a déet yow kat boo ma waxee du du ma dégg man aw ma aw ma aw ma nopp for mu jeex takk
ñoom ko di génn ku ca xaar ku ca ku ca doon ko am am na am na am na kii pét pét péto pétro pétro gaz ci ci ñu njëkk ñi moom njëkk ñi am nit nit ñu ñu mujj sax mu ñu jóg ñu ma gën ñu mujj ñu ma gën Abo Madi il y a Abo Madi ab libaani la woon mu mu mu muhaajiroon dem Amérique konoon di jéem a xam dara il y a Abo Madi moom dara nee na daal monsieur xam dara
du du jéem du jéem a def dara na la leen maanaam di moom moom pas-pasam mooy ay yàlla ak ay alaxira ak yooyu yëpp mu ne moom ay baax ak ay bon maanaam yooyu yëpp maanaam mabadi yi kubra yi yooyu amut maanaam amut ji mooy man ah man daal nee na moom weddiwut saxalut lé- léegi nag yow boo ko waxee mooy la man kat mënoo ma ko xamal ndax man ndax ndax man mënu maa xam
ah lu mënu maa xam waaw mu ne ma doon ko te te nag te nag te nag yàlla tere sëñ bi waaye ñi nga xam ne moom la tasawuf di doxee fekk fekk ñoo aaye woon échec fekk ah échec na ñu yàgg ñoom euh, islamiste yi islamiste yi moom moom lañ bëgg a dekkal moom fekk moom moo moo- mooy rey rek bu antu man ma- moom ma dama dama dama damay rey fekk léegi moom échec na moom tasawuf ñëwoon jàmbaare lool imaara bi ñoom gaa yi yi yëngal yëf yi delloowaat nit ñi ci roo suufiyanke yi léegi nag daal di am xaalis doo ngay jox leen addiye ñu ñu ñu ñu tabax ay kër wut wut ay compte banque yor ay to- ay ay ay oto yu seer yére yu seer maanaam léegi fàtte waat roo gi ne roo gi moo jur ginnaaw azad moo jur Maodo fàtte nañ ko ñu jël Maodo for léegi su boobaa nag aruux moom mooy asaad ba tey daanaka mu- mu- muy ci ci azad mooy an nafs mooy ala xaq la di di di di ah mooy al al alaq la xam nga mooy ala ñoom al alaq la arru moo kawe aql la topp ci moom nafsu bokk ci nafs naf sa matière ñu ñu ñu ñu kii la xam na somba badan bi ci la juddoo waaw maanaam léegi yaram wi yaram bi ru dugg ci yaram la- la ci juddoo ngir yaram wi ma- mën a dund doo lay naf waaw na na xiit gi nag njaayeen bu xiif ak bu mar fa- ku ko wax mu mer mer mer googee mo- mooy naf la ko jur mooy xiif ba
ah kon léegi li nga doon wax léegi ay ñu dem boobu ba fàtte ne Hmm?
ñu dem ba fàtte ne kon ok léegi li nga doon waaw wax léegi dem nañu nañ ba fàtte azab jàpp yëf yi moo doon su boobaa nag cool yi bari benn waaye mën naa jëw daal ne man daal for damay weddi for tasawuf islam si ne ko kon kaay si noonu mu ne déet yéen yéen yéen yéen a jëkkoon échec di yéen waaw suyanke yi ñoo mujj échec waaye yéen jëkk échec kon yéen ñëpp lay weddi man mu jeex la ay sérieux boo laa diri daal da daal juddu mën naa juddu de ndax juddu de ndax ndax ndax ku mel ne Moussa Diop mii ni muy xalaate question ba luy addiye addiye question bi digg la waaw nit sëñ bi nit nit la de nit nit nit la nit la nit nit la moo gisee rek laa xam ah ne boo xamal moo gisee ah subhanallah daa fees del nit xam nga xam nga fi ñu doon bi xam nga nit li may li may wax gaa yi ma leen mën ngaa nax maam nax nax nax nax baay nax doom waaye ab sët moom mën mën su ko nax murid gi nag loolu lañ fàtte xamuñu ne maanaam léegi maanaam léegi liñ doon wax maanaam liñ incarné te te dooruñu ko am suñu am sa jaxale na na na am suñu motaa bi naan man day fii la fii ma soonu laa mujj a wax ak ku baax ki léegi yow nga nga nga nga naan ah suñu motaa bi suñu motaa bi neewoon na gaa yi noppi di diglu ba xam ba xam yow nag looy wax yow yow su si wax xamu ci dara mosoo koo dégg mu wax xamu ci moom dara ba noppi nag daal ne man kat am am am am si mu bi dara ndax ndax ndax mooy sama maam sama maam léegi kon kon bë- bëgg ñu xool la gaa yi dañu xool da xool loolu problème loolu kon la di juddu mën naa am la lu lu mën a am la waaw mën a am la moo tax lu mën a am la moo tax waaw kono ma jog al fannade waɗon kadimol ok wotan dammu wotan kasimu al al épistémologia ila al épistémologia ila ila al al falsafal wadahiya positivisme ñi ñi nag ñoom ay mulhidin lañ ñoo- ñi ñi moom ay matérialiste lañ moo mooy mo- mokki kalmax yi ñoom gëmuñu ruu ñoom far ruu amul yàlla amul dara yooyu amul li am daal mooy matière rek ñoom ñoom léegi li li nga xam ne moom la ñuy def ñoom mooy a- analyser théorie bi rek théorie bi rek la ñuy ak analyser ko rek ba xam logiquement ndax yow wér na bu wéree ñu ne baax na mu jeex تعتبر يكون على الأرقام لأن الأرقام لا لا تكس- لا تكسب ما تعتمد على الرياضيات الأرقام ويفهم على الرياضيات dañoo wax ne ñoom riyaadiyaat mooy xam-xam bi nga xam ne da- dafa dafa wér ndax xam-xam bi maanaam léegi la lalu matière directement moo tax dafa wér maanaam daal moom ilmun aqli baxta la
aqli baax baxta la bu sell waaw mooy li am ci riyaadiyaat al baxta al baxta mooy lu piré lu lu amul rax wax waaw
ñoom kon ñoom ñoom la ñu wax ñoom yow sow daal mooy mbaani ma waaw xam ne ñoom xam ne ñoom ab linguistique kii ab linguistique la lay doon ku dikkee la nga wax dara mooy wax yow li nga wax li nga wax yow moom foo ko teg nga wax ko leeral ko mu ne la ah waaye li nga wax ndax dëppoo naag li nga bind waaw mu mujj a tàkk loolu la woon kan fi kan fi ne li ana li ana riyaadaat ah le- ah ok leen leen riyaadiyaat leen riyaadiyaat moo gën a waaw moo gën waaw noonu la al al alxam dafa wér alxam xisaab calcul. calcul du dara. calcul du dara. yàlla yàlla daal moo gën a kii. mooy al al alfalsafa tafsiriya. maanaam léegi interprétivisme. moog herméneu herméneutique ñoo gën a ñoo niroo.
a ngay baat bi sax ngi ne xanaa lépp fi fi mu ko beneen la beneen la. kooku ko Auxerre la Auxerre la. Auxerre la kooku kooku keneen la. wuuy bii moom jàmbaar la rek tuddoon nañ ko ah.
tuddoon nañ ko Auxerre la yee bi bi bi sax d'accord moom phénoménologie a gars yi ñu ñu ngi koy traduire ilmu zahiriyat ilmu azahiriyat mooy liy feeñ wala ah mooy phénomène mooy phénomène zahira phénomène moo tax phéno phénoménologie phénomène waaw bar bu njëkk bi mooy phénomène azahira ilmu zahira phénomène la mooy waaye ci ci ci waaye nag loolu wax na de day wax ne al wax yu huwa wax yun bi shay'in ma nit ki conscience bi lépp lu mu lu ci nekk lépp lépp lu lu mu xam dafa am fu mu jógee am na lu ñuy wax apoxia apoxia moom moom baat baat bot alma la apoxia mooy entre parenthèses égal entre parenthèses boobu lu ñu firi ci ci ci ilmul phénomène ja mooy waddoxul waddoxul asiya mu mu mooy du- du waddoxul ma jum loolu dama koy tarjuma harfiyan mooy ta taaliqul xukumu taaliqul xukumu moom mooy waddoxul ashay bayna mustawi jatayni bayna xawsayni lu lu égal lan taalixul xokk moom mooy attewoo su ma bindee ne alxitmatu di ko lancé daal di def nii tansis ko maanaam ma def nii mooy kat ah attew attewuma léegi nag yéen gëstukat yi critiqué leen ba xam taxali leen ba xam gëstu leen ba xam ndax li may wax ne mooy xitma ndax moom laal déet bu yàggee ba yàgg nag ba nga xamee léegi mujj ñun ñëpp xam nañ ko ñëpp d'accord ci ne ne wax ma def nii léegi ba ko ubbi ko ci ne seeral nag ne léegi yow mbir mu nekk da nga da da ngaa war a da ngaa war a euh, teg fële atte ba mujje ko itam si boobu lu ne xaram dagan kofuru nangam yow doo dara nangam kii ne waa ji ne oseera ne waaye déet yéen waxtaan leen xam nga yow bala ngeen ko ab jurit nga wala ab salafis nga ne ne koy nit nga waaw yow nit nga mën nañoo waxtaan fii ba di- ba juróom kat ci kanam kenn du tudd ci xar for dine ma waaw waxtaan jiw bi rek waaw moom jeex dëgg yàlla lu ñuy tuddee lu ñuy tuddee maanaam ay diine di ci xuloo maanaam bu tey fee diine xuloo du amati nit ji nit nit nit nit rek lu am solo la su waaye dafa dafa xóot dëgg yaa xóot na waaw mooy kon fa sewtu tax tamit ala charxe waaye waaye lu ñu tuddee ak taxlil alfin mënu jur du sarax képp de du sarax képp de baat bii moom du wérut moom waaw du sarax du sarax du sarax képp de xam nga xam nga loolu sarax sarax bi mooy alxeri monotiqaa boobu la waaji laaj xeer monotiqaa boo demee fekk ko ci kii ba de ma nga fa ne tëng de muy laaj kii moom mooy sarax mooy sarax waaye kii moom yow kawe na kawe loolu jamono lañ sama gars yi waaw dafa neex daal maa ñi ay nit lañ ay nit lañ ah da ngay fekk lu lu ñëpp ne du dara ñu jàpp ko di ko gëstu ba mujj mu mu too mu doon asamaaw nga ngay xool naan anamu sa ilahi la kay jamono si bi charte charte ak ak Heidegger ay doomam lañ def def nañ ci liggéey bu am solo ak Merleau-Ponty moomee mun wax moomee def liggéey bu am solo dongay kii lañ kii donc ngay donc ngay waaw Auxerre la o jàmbaar la Auxerre la nag terme bi ci moom xam-xam bi ma kii ko ci moom la siiwee rek waaye amoon nag keneen koo xam ne moo moo ko jiitu waaye moom moo ko tabax ba mu ba mu ba mu kii waaw kon al al falsafal waaqaiya réalisme réel réalisme mu alwaqaiya falsafatun taqaxu bayna alfalsafati wadaiya wa wa tafsiriya moom diggante ñaar yi lay ne rek gars yi ni kii ne kat moom dara amut kii ne lépp ci bitt la ne kii ne waaw man timaa ne ci digg bi kant kant ne da daal mel ne day am na loo xam ne moom moom xel ma ko indi mooy kay ay ma bari awli yi lu lu lu mel ne makaran zaman ñu ne ko askay ñu ànd kon kon yow nun ngàndal mu ne waaye nag xawaalib yooyu bool ba lañ cay def day daa mel ni ci ci biti jógee gars yi ne ko nag nun ngàndal
waaye nga ne wadde xiya bi waaw falsafa wadde xiya
mooy mooy falsafa boo xam ne moom gëmut yàlla gëmut ruu lépp matière la ma jël tax mooy mooy moo kon moom falsafa maddi la rek ñëw mooy odi maa ku ñuy wax Auguste Comte Auguste Comte moo ci siiwoon Auguste Comte Auguste Comte moo ci moo ci siiw waaw moom moo doon waaw da nga jàngal naa de mo wax naan waaw waaw wax naan xawma li jikkoon moom mooy ay ay ay ay ni ni ñu xamutoon monte bi daan naan ay ay roo bu dugg ci dumb jëg wax na ko yàlla ñu yóbbuñ ko de Auguste Comte moom maa di wax daal lépp matière la waaye ay ay roo amut amaana mos nañoo nett la ci moom doom ci waxtaan du waaye jëmmi moom baatam ñëwul moom ci biir téere waaye waaw tudd nga ko ci waxtaan waaw moom ma ko tudd ko tam wax bu dee wa- maanaam falsafa tafsiriya waaw moom mooy mooy herméneutique moom ah mooy bii xam ne daal bii moom mën na si ko tuddee falsafa maddiya waaw waaw wadax yi madiye la daal mën na ko tuddee falsafa maddiya moom madiye la madiye la ñoom gëmuñu yàlla ñoom gëmuñu yàlla waaw boo ko déggee baax na macha allah. bind bi gudd na de waaye baax na